yow laa njëkk a jox kàddu bi waaw Birama ñoo ngi leen di nuyu nuyuwaat di wax rek ni situation bi ne ci réew mi moom la ñuy bind ci jamono ju ne mooy boo xoolee tension bi presque c'est politique euh, mooy yéene gi nga xamante ni ñi yor réew mi tey amuñ ko ngir organiser ay élections yu baax nekkuñ sax ci xalaat boobu parce nag am réew bu fekkee dañ la ko jox ci anam bi nga xamante ni moom lañ la ko joxee te yow liggéeyuloo loo xamante ni moom lañ ni doon xaar ci yow ndax Macky li coow liy bari bari injustice moo ko fal ce que je veux mooy sénégalais yi ñoo gis ñu teg ko yu metti hmm. ñu teg ko yu jafe mu naqari leen ñu faral ko ànd ak moom fàtte sax ay ay bu démbam ngir réew la goo xamante ni dañoo bañ injustice kon yow condition yooyu bu fekkee falu nga ci ju fukki at ak ñaar nga tas yaakaaru réew moomu yaakaaru ñi nga xamante ni ñépp jamono dikkoon na nga jaral leen lu ne mais yow dootoo xam nooy def ci lan ngay nekk sa passe ou ça casse mooy jaay doole ci la nekk jaay doole boobu nag c'est un constat qui mais nag dafa am lu ñu war a bàyyi xel mooy ni Sénégal dañ ko moom te gis nga xëccoo gii ñu nekk nii mu nekk justice la du justice ñii jàpp naa ni bu senegale yi delloo ca lañ man te muy dëgg waajal élection yi def ci seen itte bañ dara lu leen divertir ñii amul ci lu ñuy langaamu ba duñ wadd on doit être conscient d'une chose nguur gu jeex la nguur nag buy jeex Afrique boo sàgganee dalay lay yóbbaale ndax lu mu jotee rek dafa mel ni kuy lab ci biir géej donc mooy yu déplorable yu yu yu yu yu xeebu yi ñuy jëfandikoo fu mu ne nii xoolal bu ñu demee ba euh, le candidat Ousmane Sonko. nga xam ni wax dëgg euh, ku ne xam nga ni téye na réew mi ci anam boo xamante ni kenn mënu ko nier. actualité actualité bi. actualité bi je veux koo xamante ni suba ak ngoon guddeeg bëccëg turam la nit ñi di coowaloo ci mbedd yi. lu tax parce que nag yàlla dogal na ni am na ñu ko topp am na ñu ko wóolu benn ñaar. te yi ñu ne moom lañ ko teg boobu ba tey nit ñi convaincre leen sax ci say jëf dañu dem ba nit ñëpp tàyyi ci ñiy jëfandikoo tey justice bi justice nag boo xoolee wax dëgg mooy li may faral di wax ay nit ñu baax a ngi ci suñ boroom moo dogal ni amul fenn fu ci ñëpp bokk jikko mm-hmm. ñii dañuy melokaano nii ñii melokaano ne mais c'est dommage que aussi dañu nekk société boo xamante ni nit ñi dangay am fukk ñu baax ba ci biir kër am ci benn brebis galeuse benn ku wowle ku dëgër bopp koo xamante ni euh, nit ñi nit ñi nit ñi ne ci mbedd mi bu ñu dul bàyyi xel waa kër gi ñeneen ñi fane ne dinañu jël paate gajaga moom mu nga xamante ni moo nekk am ay melo ci biir kër gi ba ko àttee waa kër gi yëpp kon justice du Sénégal képp kuy jiite réew mi sax nanga leen bàyyi xel ndax dafa yàlla dafa dogal léegi dafa am ay gone yoo xam dañoo lànk ni kenn moomu leen. ils na disent que droit. nga yóbbu leen fongale mi nga yóbbu leen Koungheul ak nga yóbbu leen bàkkeel ak nga bàyyi leen Ndakaaroo leen jamale bëgguñu lu dul lu leen seen ñàq di may kon nag loolu dafa jar a bàyyi xel yii nag ñaaw na ba noppi. mais ñun on pense que. boo dee homme politique nga ne ci réew mi mel ni Sénégal nga xam dara jige ko lu dul jàmm les tenants du pouvoir amuñu yéenay bàyyi réew mi di ci am ay doxalin yoo xamante ni ku ne xam nga ni lii jaaduwul te ñaaw na on n'a pas à perdre de temps di xëccoo ak a xeex ak ñoom duñ ko def surtout nag xeex boo xamante ni tojante bopp la ak reyante di na nit ñi organiser wu nit ñi dajaloo déglu yit bu baax a baax a baax a baax ñi nga xamante ni ñoo ne ñoo bëgg a jël réew kan mooy kan ku ne fan nga toj qu'est-ce que tu pour war a mën a taxaw naan leen dénk leen ma réew am réew du caaxaan d'accord et les choses sont très sérieuses d'accord ñun nag ci dynamique boobu lañu nekk